asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di tàmbale nuyoo bi ci sëriñ Abdoul Ahad Bousso ak mbooleem ñi mu fi nekkal fii ci jumaay Tuubaa ji ci daara bi ñuy wax Muxaddamatul Xidma mu am mbégte lool donc ñëw fii tey ci weeru koor bi ci weeru sell bi donc ñëw représente fi eh, PAMECAS ànd ak suma kilifa ñu koy wax Moustapha Gaye di président di conseil d' administration bu Pamecas Touba ànd ak aussi Baba Sow mi nga xamante ni aussi administrateur la ci ci bi ak euh, Ablaye Sam bi nga xamante ne aussi sunu collègue la ñëw bokk service bi ñuy liggéeyee donc ñu ñëwoon fii représenté donc Pamecas bu Touba Pamecas bu Touba aussi bokk ci kees bu ñuy wax envergure Thiès ñoom aussi ñu nekkal fi waa Pamecas direction générale bi nga xamante ne xëy na réseau bu. law bu bu bu nekk fépp ci Sénégal ñu amoon yéene ci sunu biir liggéey comme ni ñu ko daaw toujours donc liggéeyal Serigne Touba donc ñu xam ne lii aussi xëy na bunt la boo xamante ni waa mu xaddamatul xidma ñoo ko ibbi pour képp ku bëgg a barkeelu ci liggéey bi xëy na nga jaar fii ñu ñëwoon fi daaw donc amoon yéene aussi ñëw fi ren te ñëw fi aussi ñëw bu xëy na bu gën bu daaw xëy na mbéyoon boobu aussi xëy na yàlla dogalu ko ren waaye ñu ngi ñaan aussi yàlla bañu fi ba yii di ñëw gën a kawe gën a yaatu waaw léegi nag xëy na du ma solo ci wax ji mais damay bàyyi kilifa gi nga xam ne moom laa àndal nga xamante ne mooy Moustapha Gaye di président conseil d'administration xëy na mu wax ci turu PAMECAS. wa rahmatullah xanaa kàdd yi du gudd ay kàddu cant la rek euh, di bég ci sunu barkeelu bi ñuy. tàbbal ci liggéeyu xidmatul xaddim xëy na bii mooy ñaareel bi yoon buñ ciy tàbbi te am yéene di ko def at mu jot di am yéene tamit lépp luñ ci tàbbi ren ñu mën lu ko kawe xëy na daanoo nekkaat jotaay boo xam ne dañuy xamal tàmbale ko ci kilifa gi si sëñ Abdou Lahad ne ko ñaan yi ñuy ñaan jëmale ko ci Pamecas ñu koy yëg ndax bu suñu borom dimbalee ba lañ mënoon daaw ñu mën lu ko ëpp day baax tamit ci kilifa yi nga xam ne ñoo ñuy topp di saytu ndax liggéey bi mi ngi dox wala mi ngi sooxe ñu xamal leen ne ñu ngi sant bu baax ndax côté résultat yi mi ngi gën a yokk te lii nga xam ne tàmbali nañ ko dañ ko fas yéene ànd ak réseau bi yëpp réseau PAMECAS ndax yéene jiñ ci am du PAMECAS Touba dong moo ko mën a matale am nañ yéene fës ci bu baax ci liggéey bi nga xam ne dafa jëm ci askan wi ndax PAMECAS li muy def dafa tudd finance sociale ndimbali néew di doole yi doole leen ba li ñuy yëngu ñu mën ci am am ngañaay gën leen a kàttanal kon lépp loo xam ne aussi bu bu ñu amee ngañaay ci at mi li ñu tuddee fonds sociale ci la ñuy jël delloo ko ci askan wi te gis nañ ne benn bunt gënu ko yay lii ngeen di def nga xam ne dangeen koy jëmale ci askan wi kon ñi ngi sant di gërëm bu baax waa daayira bi pour xamal leen ne tamit ci lañ bokk waaw lii ñu fi indi defuñu ko ndax nu mel ni ndimbal waaye dañ cee wareef la ci ñun salaamaaleykum wa rahmatullah euh, waaleykum salaam wa barakaatu sëriñ bi ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax nuyu signal yi di nuy kilifa yi ngeen àndal yëpp sëñ Thiaw ak bokk yëpp di nuyu waa PAMECAS yëpp nag di amaat mbégte di toogaat ak yen ci barab bu tedd bi ngir ànd ak yéen ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba ci barab bi te ni ngeen ko waxee yoon wi du yoon wu njëkk ndax ñëwoon ngeen fi ci at mi weesu àndoon ak ñun ci liggéey bi yare nit suñu borom baaxewaat leen ngeen ñëwaat ànd ak ci liggéey bi ñu leen ci sant bu baax di ci gërëm te ñaan suñu borom mu nangul leen te nangul nu te yokk seen kàttan ba yéene jii ngeen wax léegi te feeñal ko suñ borom may leen ngeen man koo matale na ngeen ko bëggee ci barke Cheikhul Khadim di wax rek ne liggéey bi moom ni ngeen ko waxee léegi rek liggéey jaamu yàlla la ci jaami yàlla jaamu yàlla ci jaami yàlla moom la mu doon liggéey bu yaatu boo xam ne itam buñ ubbi ngir ñëpp man cee jariñu yéene itam li ci nekk ci ñu xam ko tamit yaaba ak xéewal yaatu ñu yéene ko ñëpp moo tax ñu ubbi ko ci ñëpp ngir ñëpp mën cee jariñu waaye ndokk nag yéen yàlla baaxee na ngeen bokk ci ñu yëkk loolu ba jàpp ne seen kattan mu bari mu new war na cee dem ba tax ngeen jóg déplacé wu ñëw indi seen participation daaw indiwaat ko ren loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne li ngeen fi indi defal nañ leen ko ci liggéey bi incha allahu taala di leen sant bu baax di leen gërëm di leen yóbbante itam ay cant ci ñi ngeen seqal liggéey bi réseau bi ni ngeen ko waxee léegi ñëpp di leen wax ne it ñi ngi ñun ñu ubbi ko lañ ñu tàllal ñëpp loxo lañ ngir ànd ak ñëpp liggéey bi waaw nuñ ci ñëwee rek incha allahu dañ leen dalale noonu ànd ak ñoom ci liggéey bi yaatal ko ndax euh, mbirum jamu yàlla moom kenn waru cee xatal kenn euh, te barab bi it dañ koy faral di waxe du leen ni kenn lépp ñëpp lu ne ku ngi ci ku rek mën na cee bokk ku ne itam am na ci wàll tax na nag ñu ubbi ko ba kenn ku nekk ku ñëw parce que ñu fas yéene daa tàllal loxo ànd ak yow fii yaa ngi sàmmoonteeg war ma ji nga xam ne barab bi laaj na ko kon nag mm, loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne moom lañ leen bëggoon a jottali di leen sant di leen gërëm yenn gis nañ gis nañ loolu ci yéen moo tax lu ngeen fi indi des na leen ko defal ci liggéey bi incha allahu taala ñu ngi leen sant nag bu baax di leen gërëm ci yittewoo gi ak bàyyi gi ngeen bàyyi xel liggéey bi ak topp gi ngeen koy topp xam xam xam xam lañ fiy def ba man cee jëf ni ngeen ci bëgg a jëfee euh, tool la daal boo xam ne muy bayal Seexul Xadim la muy di ko jaamul yàlla ci jaamu yàlla yi ngir liggéeyal ko Serigne Touba jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ngir liggéeyal ko Serigne Touba ndax Cheikh Mouhamadul Mountakha day faral di wax ne nañuy jaamu yàlla liggéeyale ko Serigne Touba di liggéeyal Serigne Touba di ko jaamoo yàlla loolu la kon nag loolu rek lañ fa yéene dundal fii incha allahu taala parce que yéeneen ànd ak nag taalu bi yëpp. ku ñëw rek incha allah ñu ànd kook moom uh, ñu ngi leen di sant bu baax dinañ gërëm te leen séntuwaat nag na ngeen di déwén incha allah ni ngeen ko waxee di ñaan yàlla ak barkeb Sëñ Tuubaa yi na ngeen di déwén bu ñuy bu ñuy ñëw mu yokk ba bu baax a baax a baax a baax te loolu ci seen biir yokkute lay mën a amee kon nag yàlla yàlla yokk leen ba jëf ci mën yokk ni ngeen ko bëggee incha allahu taala jërë ngeen jëf